ne moom de mi ngi lay delloo nuyoo ne nag yaa délégation bi nga àndal bépp ne ci au conseil bi ne nii nga ko def nga ko daan defee naka jekk waaye nag ni ko waxee leen ne yokk nga ko ne kon ñu ngi lay sant bu baax. ak moom ci collègue gi nga xam ni ne cofet bu ne moo ko laal ne mi ngi lay nuyu bu ne di la dalal jàmm ci Touba ne du nuyu ñi nga àndal ñëpp tàmbalee ko ci ñeneen dal ci bi ne di njabootu boppam di seen di seen ciini monsieur Abdou Aziz mi nga xam ni li wax ci moom rek. lii nga wax ci moom rek. loo ci wax rek bàyyi nga ci. ne loo ci wax rek bàyyi nga ci ndax moom yàlla dimbali. ndax moom la ko. mboolem ñu bokkal. mboolem ñu bokkal. ñëpp ko noonu. ñëpp ko noonu. ñëpp am fuñ ko teg. ñëpp am fuñ ko teg. ndax ak dëggoom. ndax ak dëggoom. ak fullaam. ak baaxam. wax ni ko yow kat nekk ci li nga am ñii seen waajur ndax ñëpp a maase ci yow ne ko ñu koy sant bu ba di ko ñaanal yàlla saxal ko jukko ñoo ñi ko yàlla jox ci bakk Sëriñ Tuubaa nee na nuyu jarbaat bi di Basiru Jaxate ne moom it ne diggam ak moom ñëpp xam nañ ne ñu yaayam séddoo diggam ak Sëriñ Abdou Khadre ñëpp xam nañ te loolu ñu koy topp toog dëgëral ne wax ji mu waxit ne wax bi rafet la wax bi xóot la di nuyu sëñ Amadou Fall mi xam taal bi sëñ si li ma taal te bi ko sëñ bi dugal ci kii moom mii la ko waxoon lépp ci loxoom la jaar moom itam cër bi ko cëral sagal lépp xam nañ jëm sëñ bi kon ñu ngi koy ñu ngi sant bu ba di nuyu mbokkam di xaritam muy sëñ Aliou Dia ne fu ko tuddee tudd Abdoulaye Wilane tudd Cheikh Seck mi tudd naa ñëpp ne boo ñëwee rek ne damay fàtte kon bu ndaxasee ba tudd rek tudd nañ ñi nga àndal ñëpp waaye ñu ngi seere bu sa digal yoonu murid ne délégation bu bàyyi ko état ci yow la dëkkee bi fekk Diouf nekkee ci la ko nit ñi xamee ginnaaw bi tam bi mu fi jógee ngeen ñàkk nguur gi nga ànd ak sa jom ak sa ngor ak sa fulla ba tax nga yegg si bi nga yegg si tey ne loolu nag ñëpp la ko seere yàlla ci mbir lay li nga xam ci réew mi li nga am ci réew mi fi xam li nga fi xam ñu ko fi xam bëri te kenn mës a dégg bi ko wax kenn mës a dégg lu jóge ci yow kenn mës a dégg nga wax wax du ñaaw te loolu ñu ngay wujjee ci politique la ko seedeel ndax naa la Abdoulaye Wade bis boobu président la nga nekk ci opposition bi mus Abdoulaye Wade seere la loolu ne ko kay loolu di ko jooju ñun ñëpp moom la gis teew moo tax ñun ñëpp ñu fonk la moo tax cër bi ñu la jox ñu jox la kon ñu ngi lay bu baax la ca dolli ko it nekk nga sédd yoonu murid loo xam ne moom xam fu ñu koy gàkkale wala fi mu koy woy pare. loo ci dégg. loo ci dégg. ne doo defaat kenn. la nga ca war a dox. da nga ko ca dox. te moom xam na ci lu bari. loo xam ne seere su wér la. nekkoon loolu lépp nag. te bi nga sédd yoon bi. xam nañ ko. te bi nga sédd Sëñ Tuubaa. xam nañ ko. kon loolu doy na sëkk. ne moom ci jëmmi boppam nag. cofeel bi nga am ci moom. adduna bépp xam nañ. nee mboolem suñ ci si ci fonkeel ci sa digal moom weesu na ko kon ak jantam teew am na tàmbali waaye amul fu mu yëg mu lay ñaanal la ndax bokk nga ci ñi nga xam ne ndax bokk nga ci ñi nga xam ne jàmbaar bi ci réew mi jàmbaar bi ci réew mi am na jikko yoo xam ne am na jikko yoo xam ne bu mu daje teew nga sàmm ko ñëpp dañoo war a ñàgg kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm di la xamal ko jugee jërëjëf jërëjëf tàllal lañu ñëpp tàllal alhamdulilah sa xarit ne woon na naa wax ni nga ba fi Abdou Diouf demee ba ma ko waxul